lool lool lool euh, mu mel ni kon wax nga ñu dëkk bi wax ñu doomu euh, way maanaam Touba wax nga ni njiit yi fi ñëwoon kenn ku nekk am nga loo jëf mais la sëñ ba mébétoon ci dëkk bu tedd bi mhm. donc am na lu bëri loo xam ne dafa desoon mhm. donc waaye comme ni ko comme ni ko Cheikh doon waxee ñun la waroon ñun taalibe yi mhm. waaye keneen keneen bu ñëwee duñ ko yombalal mënuñu lu dul fay ko bor ba donc tey jii nii bu fekkee dañ dem jàngat mbindu Cheikhul Khadim ak ba 2012 président Macky Sall di ñëw. laata muy tàmbali foofu dara. donc lan la sëñ bi mébétoon ci dëkkam ba. loo xamante ni diiru fukki at yi ak at yi ak ñaari mën nañ duut baaraam ni Macky Sall ci ci ci maanaam ci mu tudd sax ci jëfam ci dëkk bu tedd bi jëf na fa nangam ak sàngam. ci lépp domaine domaine sëñ bi ñaanoon lépp lu ci ëpp dugg na ci loxo. Hmm. xam nga ñu delluwaat ginnaaw tuuti ci. ndigali tubaay xam naa di nga ci ñëw mm-hmm. ni ni xale yi féeturloo ci ndigali yooyu noonu waaw euh, président sëñ sëriñ bi li mu gënoon bëgg muy xam-xam nga moo ko dese woon ci ay mébétam ak dem màkk sëriñ Fallu defal ko màkk mm-hmm. xam-xam bi sëriñ bi la xam ñëw sosoon université ndax sëriñ bi la xam suñu tubaab dana woon am naa ci yaakaar mm-hmm. mooy mooy jëmm joo xamante ne ba àddina tukki ci waa Kër Sëñ képp ku ñëw cib liggéeyam ngay ngay sof àggale rek mhm. waaye moom tàmbali la lépp wallaay wallaay moom Sëñ Abdou Lahad mhm. képp ku ñu kuy waxee mhm. ñëpp yokk jumaa ji def xam-xam Sëñ Muntaxaa mii fi ne xam rek ko ñor ko tam ëpp ko ci àdduna nag te kenn xam ko ci moom wallaay ay yaram ak tegginam ak mbaaxam ak yërmandeem. Mm-hmm. président def na ci lu nekk ca université boole ku wet demal Touba. Mm-hmm. te Sëñ Touba li mu gën a bëgg ci xam-xam mm-hmm. wàllu ndoxum Touba liggéey na ci loo xamante ni kenn mësu ko caa liggéey. assainissement yu bëree bëri maanaam domaine boo laal. nit ku parce que nit nag bala ngaa mën a jaamal wér. mu dafa hôpital boo xamante ne amul ci Sénégal. te loolee Sëñ Tuubaa la ko defal mhm. te Sëñ Tuubaa ñaanoon la loolu lépp ci ab dëkkam mhm. kon Macky mel na ni ñaanu Sëñ Tuubaa dugal na ca lu baree baree baree baree su ma doon cent dama naan 60 wala 70 pour cent liggéey na ko ci ayam ci bëgg-bëgg Sëñ Tuubaa ci dëkk ba mhm. macha allah donc mu mel ni kon euh, ni nga ko waxee jéem na kéem kàttanam sëñ bi taxaw na ko comme na ko ay way juróom doon defee rek wàcc kook sëñ Tuubaa donc ne ko maanaam yéene bi ma am ci yow mënu mënu mënu dul bàyyi laa bàyyi laa ak sëñ bi mais dafa dem nañ ba ci biir ñu commencé gis lu mësta am ci dëkk ba di mhm. faa am mhm. saa sëñ bi day wax ñu xotti ay worma mhm. sëñ bi day wax ay ni dugg ba ci biir dëkk bi dafa ay manifestation politique dem ba mu tere woon mbirum manifestation yi nit ki génn Mbàkke fu gën a jege Touba. ñu defaa manifestation yàggul dara taalaat dëkk ba ba ñu mujj baay Fall yi mujj jóg ak seen ak ak ak ak xalif général des Baye Fall donc bu mën taxaw la sëñ ba digle biir Touba donc ñu mën ko ñu mën ko sàmm lu mel noonu. Mhm. bu tàmbalee am. maanaam yéen ñi nga xam ni yéen a xam ngeen dëkk ba xam sëñ bi xam waa Touba. Mhm. nan ngeen d'abord ngeen jàggatee mbir mi ak lan moo war a nekk taxawaayu tey jii ki nga xamante ni murit la nekk taalibe ak li nga xam mooy ndigal sëñ bi nga xam mooy xalifa bu ñu wax sëñ Mountakha mooy sëñ Touba donc taxawaay bi nga xam ne taalibe war nañ ko mën a am taxaw ci ndigalu sëñ sëñ Mountakha Mbacké. waaw ah, man sama jëm bopp war naa ci moroom mooy am ci lu ma naqari lool. Mhm. lu ma naqari lool. waaye li ko waral li ko waral dana ci ñëw mooy que ni Touba day dëkkub Serigne Touba. Mhm. Sëñ Abdou Lahad waxoon na fi ay tere. Mhm. nangam laa fi tere nangam laa fi tere nangam laa fi tere te boobu diisoo na fa rakkam yi fi nekk yëpp. Mhm. boobee am na ñu taxawoon jëpp nga jëf leen teg moom. te tere boobu mun leen sama bakkan laa ci dara. fexe ba loolee am sa li Serigne Touba bëgg ci dëkk moom fexe na ba loolee ku koy def it da nga koy nëbbu. nit ñëw na moom sax ni ko ah sëriñ bi de li ngay aaye Tuubaa am na ñu koy def di ko nëbb mu ne alhamdulilah rabbil alamin mhm. comme ko daan mhm. mhm. suñ borom sax lim tere lépp ñu boobu ñu ko ca ñu ko nëbb rek alhamdulilah rabbil alamin nga xam ne lu seen la boobee lu ne jot na ko ci te booba ñooñe yi dafa am ñu newoon seen ginnaaw li ko jiitu mooy sëriñ bi yoon wi mu bàyyee muy lislaam ni ku bëgg ñëw ku bëgg a dem na yoon waa ngi nii mm-hmm. bi muy jóg dafa am ñoo xam ne mosuñoo d'accord ci loolee mm-hmm. ñooñe noo fi nekk ba tey nag mm-hmm. mosuñoo d'accord ci yoonu murid yoonu murid day déranger te ñi muy déranger am na ñoo xam ñu ngi ci biir Touba di mel ni ay seex te duñu ay seex ñenn ñi lëkkaloog ñi waa Touba di yàq ndigalu sëriñ bi sëriñ Mountakha fay ñu ko borom digg naa ci waxtaanu sëriñ Samba yi mu ne bokk na ci nit yàlla ñu yàlla yu yabal mu ñëw ngir dimbali doomu aadama yi man 80 laa ko xam njaareem boobu maa ngi jàng ci daal ji mhm. nekk fu ñu naan kër Baye Cheikh Mbaye mhm. moo ko sëriñ Abdou Hakim radiyallahu taala la daan toog mhm. waaye jikkoom ja ak meloom wa bi daaw soppiwu ko macha allah bëgg sëñ Tuubaa gi taaliba gi yërmaane ji kersa gi ñëpp jàmm bi daaw bi soppiwu ko naka jëkk noonu la mu samel moom sëñ Muntaxa daa moom moom moom moom dañu cucc rek xamul ku du sëñ bi dund du du sëñ bi magam yëpp ak baayam yëpp mu tërbiyoo leen ba am seen ngërëm. wallaay wallaay. Mhm. waaye fay ñu ko borom. ki gën a sonn ci àdduna mooy sëñ Muntaxa. Mhm. te dañ parce que dañ koo jàppale wut. li liggéey na sëñ Tuubaa ba sëñ sëriñ bi gërëm ko ay magam gërëm ko ay baayam gërëm ko ñëppam waaye jàppaluñ ko ci lim nekk. Mhm. ndax ñun war nañoo am gàcca sëñ Muntaxa taxaw ni lii laay bañ Tuubaa ñu ni ko li ngay bañ duñ ko def. liñ bëgg def la ñuy def. ngir bëgg bëggut benn nit. xam nga Cheikh Mamadou Mokhtar. radiyallaahu tax na bu daarul Muxti lii ma wax lépp waxoon na ko. jafe-jafe yi ñu am te kenn du dara Serigne Touba lépp lu waaye am Serigne Touba dafa defal. wallaay dëgg la. bu nangu woon li ñu yor ñëpp sàmmi. kon Serigne bi nag bu nee sama dëkk bii te Serigne Mountakha mooy Serigne Touba. mooy Serigne Touba mu wér. bu wér a wér. démbam ak tayam kenn mënu koo gàkkal waaye lu ko naqari ñun waa Touba ñoo ko teg. Mhm. war nañoo am gàcca ñu ni. bu suñu leader politique diglé señ bi diglé señ bi day xaar hmm trop trottaan gi weesuwul loolu mhm. barki dem gis naa ci Touba mhm. ñu yor ay bidon tëgg naan sëriñ Muntaxa ndox lañu bëgg di tëgg ñàkk worma ak ñàkk kersa ak ñàkki ñu weesuwul loolu maa ngi mu doon sëñ Muntaxa nga yor ay bidon ci ay magi jëm ñoo ko def ànd ak gone di tëgg naan sëriñ Muntaxa ndox lañu ñu bëgg sëriñ Muntaxa ndox lañu bëgg te ñay saboté ndox ma ña ngi ci biir Touba saboté wuñ ko sëriñ bi lañu saboté hmm ay sëñ moom lam ñaanoon ci mala ah, foo seeni ci ndox ndox ma gëna baawon Touba la kulli wallahi Mm-hmm. dana dana baawan mm-hmm. sëriñ moom da nga maskani sëriñ bi da nga koy da nga koy defaral ba defaroo ca mm-hmm. wala nga di ko yàqal ba yàqoo ca bi mu taxawee wax ni bëggatuma luy politique wala luy manifester ci Touba sëriñ Blaata bu njëkk ko wax dafa aay woon politique daal nañ ko génne Touba yóbbu ko ci Daaru Marnaan boobu Daaru Marnaan nii Touba demee ah, demee waa noonu muy doomi sëñ Touba sëñ Mountakha ñëw wax leen nañ ko génne luy Touba ñu lànk man ndaw ñi dañuy taal. ba ci mm-hmm. station yi ba garage Darou Mouhty benn station Total bu taal boo xamante ni ndeysaan borom liggéey la xam seen bàyyi nekkoon jàmbaar liggéey joxe joxe addiya ñu ñëw taal ko ndax lan dañ leen a gëmloo ñu leen Total tubaab yee ko moom. Mm-hmm. ñun waa Touba nag yàlla bind luñ dugg dañ ci ëpp dañ ci ëppal. Mm-hmm. café sax dañ ci ëppal xasida dañ xasida dañ jël xasida jàng ko ñaar téeméer yoon <laughs> lu ne lu ne lépp dañ ci ëppal xami ñu te nax nañ leen wii de seen bopp yi gëmloo liñ leen ndigal amatut addiya yi dinañ joxe Touba sax di jënd addiya di ko def ci 1000 francs yi Touba yi sax dam jox dam tak tak jënd ko ab lam mooy seen loo yooyu ñu takk mu mhm. léegi gën a jox ko Sëñ Touba te addiya benn ko mhm. Sëñ Touba mooy Sëñ Touba mooy Touba li abdin muridin sadiqin lahum bi xidmatin mhm. aw bi hubbin ahmadiyati ñett yi ko tuddal boppam te lépp mën nañ koo faram-fàcce waaye léegi bu sëñ bi wootee sëñ bay xaar seen leader politique ñu dem ñu dem xidmaal ko sopp gi sëñ bi amoon moo bëgg mooy amatut léegi ñu kee leen sopp dañuy jël gis photo Sëriñ Tuubaa sax mhm. jël seen photo leader teg ko takkale ko moom mhm. subhanallah du gën a ñàkk war ma lu amut addiyee gi joxee duñ ko lànkal lañ ko ko mhm. dañ ko bu lee ko jox sëñ bi ñu dem jëndul lam takk ko yàq nañ ndaw ñi suñu waxee ñu jël président jabole su ak ak nit ñi ñoom politique bi ñu indi moo baaxut léegi war ma amatut kersa amatut mag ak rakk day toog sax mag ni ko rakk ni ko waxoo dëgg te loolu am te lépp ñoom ñoo ko waral mhm. tey boo toogoon ni mhm. sa rakk sañ na laa weddi sañ na laa saaga mhm. te lépp jikko ñoom ñoo ko indi ñu waxee ñu ni jukko yi léegi jukko yi kenn andiwu ko politiciens yi la kase bëgg a jël Touba bëgg ko jabolise ak ndaw ñi jël Touba bëgg ko jabolise ak président waaye li wétu ba mooy ndigalu sëñ moom li sëñ Touba waxoon rek Touba moom ko fa nekkee lu neex yàlla gudd fan am barke di nga sax lam ko fa nekk lu neexu sëñ bi génn ci nii wala génn ci naa rek mhm, mhm. li mooy Tuubaa mhm. dafa mel ni ngir dëggal li nga wax euh, moom mi nga xam ne moo leen jiite woon ba mu fa jëfee jëfan jëfin jëfinam googu ba bëlee bañ seetloo dafa wàcc jëm ci suuf fa la ko fekk voilà voilà fa la la fekk ci jumaa ji la ndax mën nga ñëwaat ci ci bis boobu bis boobu la waaw man yàlla dogal na ajjuma gu jot ci ginnaaw sëñ bi lay jullee ñu may dégg xam nañ ko dafa am limu nóor daara ñu ñu fay jàng mag waaw samay xarit mm-hmm, mm-hmm. ca laa bokk sëñ bi lañ ci ñaanal mu gudd fan mm-hmm. yëgu ko sax waaye bi muy dugg si man toog na maag sama benn mbàkke mbàkke mun ma Ousmane dafay ñëw tey ma ne ko fekk maa ngi yor xasida suba jàng xasida ma ko ak moom waaye dama koy warmaal ndax mbàkke gi mu sant waaye waxuma ko dara bi mu ñëw coow am na coow li ñaan amul coow am na man lépp maa ko fekkee fi ñu naan daari kaay nga jaar dugg dugg si jumaa ji foofu coow am na fa garde corps yi dugalul ñeen ñaar la àndal Mm-hmm. ñaar Assane Mbacké la àndal euh, euh, Cheikh Thioro la àndal ak Moustapha Diouf mm-hmm. lambaay waaw ñoom ñaar la àndal dugg ci biir bu mm-hmm. mu duggee Cheikh ma nga foon sëñ mu taxaw booba mu julli sëñ mu ñëwee ci génn mu baax ak seenu bi mu jullee pare nuyu na sëñ bi wax nañ ko sëñ bi mu ñëw nuyu sëñ bi bi sëñ bi jóg bëgg naa ànd ak sëñ bi dugg ci barabu sëñ bi ñu ne ko dee des mhm. day xaar ndax loolu mën naa andi mhm. coow mhm. bi sëñ bi duggee ci barabu sëñ bi ba génn moom mu dem toog daari kaamil bi ñu toogee ba daan kaamil ba pare mu xat bi ñuy xat mu tàllal bi ñu génnee foo dégg aw turam gone yi du ko yuuxu te loolu bokk ci war ma gone yi man lépp sama kanam maa ko fekkee kenn nettaliwu ma waaye sëriñ bi doy koo xamante ne boo ko ñàkkee war ma ba addunay tukki war nga jooju boo ko tub doo doo dëgg na seetlu nag depuis keroog mu def loolu jumaay Tuubaa ba léegi mm-hmm. ndax am na am na lenn loo xamante ne lu ko neex la mm-hmm. li fekk tuubale ko mm-hmm. da nga koy toog a naqari mooy ay dañ naan ma man ajjuma midi lay ma mën di nekk bu ajjuma jotee julli jee weer wu ne ma julee ci Daaru Salaam bi si mu dem Tuubaa julee ji ndax lim yeen fay def mhm. waaye loolu moom fanoo fekk kenn nit li mu ko li ñu waxit lépp lu am la mhm. aw turam lañ doon jaabaa jonge ci biir ormay jumaa ca loolu ci biir bërëbu sëñ sëñ bi <coughs> sax ma sax yaa ngi koy wax ne euh, bërëb bi ku ne jéem na ko wut euh, yàlla xamal leen ni bërëb bi am na ko moom mooy bërëbu señ bi mooy bu ñu ko waxee mooy jumaa ji mooy jumaa ji ak feggoo ak këram këram nekk nii ak daara kaamil gi mhm. donc bërëb bu mel noonu bu ñu fa jëfee jëf ju mel noonu ay murit tourné di défendre que jëf-jëf jooju xol war naa mën a mën a tooy lool lool waaw waaw waaw ndax fi doon nii li Cheikh Bass waxante kenn ñimeetul wax ndax ragal mhm. fii la yàlla jubbi ragaluñu moom. waaw wallaay wallaay jaxata nga sal ragaluñu kenn man man dëgg laa faral. wallaay wallaay. Uh-huh, uh-huh. dëgg laa faral. Uh-huh. moo ko fa def. ñoo koy défendre amuñu taalibe. amuñu yar amuñu teggin. Serigne Mountakha mi dem ba ni. Cheikh Moussa Bachir. man day wax dëgg yàlla julli gi ma julli gi ñun ñi topp oto yi day. maam gënalu ko. waaw parce que ñoom ñëpp dañuy ànd dem bay daw loolu ngir warmal jumaa ji nitu àddina jërul wax. wallaay wallaay te moom muy sëñ Tuubaa mhm. waaye daw gi oto yi topp nit ñi daw ci oto bi ngir sopp ko dong mhm. ak di ko ñaanal yàlla nga fi yàgg mbàkke yàlla nga fi yàgg mbàkke dong lañ koy wax mhm. loolu sax bëgg ko ndax ku baax ku ku ki fi tëdd ki fi tëdd wallaay wallaay wax na ma ne mag ñi àggoon nañ ci bu ñu bëggee tifli dañuy jël kaala tifli ci waaye rus nañoo tifli ci suufas Tuubaa est-ce que loolu jooju war ma sëñ mu taxaar jox ku jox war ma sëñ Tuubaa bëgg sox légui yow nga ñëw ci jumaa ji ñuy ñuy yuuxu yoxu yoxu saw tur yaa ko def exprès ya ko tay mënu nga julli ci ndank dem sa yoon kenn du kenn du la mm-hmm. annoncé ni ma nga julli ci pour défier sëriñ bi du ci jëlee ndam da bañ koy japp bisu aljuma la ko def bañ koy japp bisu aljuma lañ ko japp donc lolu lolu amna amna amna amna solo lool lool lool euh kon